kii xanaa sa facture kër kii atelier bi mi ngi onze mille francs xanaa doo suude suude non yo mbaɗa wakkine o ki contrôle lan bo soudeur buy fay onze mille franc soudeur soudeur loolu lay liggéey soudeur aussi dangay tànn sa dangay dangay fay ah waaw da ngay def demande soixante trois jours neuf cent Ça, c'est des redevances. Ça, c'est une école. C'est une école, redevance. C'était pas utilisé. Ah, voilà, voilà, voilà. nga ko consommé te ñaata lamp nga am ñaata lamp nga am ñaata frigidaire benn la bu ndaw bu xëyee benn télé waaw mu ngi soo ko nattee matul ñaar téeméer par bés. wala juróom fukki fan ak juróom. mu la facturé mu facturé fukki junni. wóor na ma li ngay fay téléphone moom crédit téléphone. matul ñaar téeméer par bés. waaw ah, matul waaw. c'est francs. 65 ah. jours. waaw. Ah. ça veut moins de 1000 francs par jour. oui. non waxuma ne cherul. mais wax ni rek. Euh, moom nee na benn lamp la am ñu ngi fay cinq mille. cinq mille ci ñun bés bu nekk ñaar fukk rek noonu la laaj. waaw par bés. bariwul ah. bariwul